Nous sommes tous de la famille libérale. Abdoulaye Wade nu meññ ñu ngi koy ñaanal gudd fan di ko ñaanal wér di ko ñaanal jàmm ci réew mi Pape Diop bu nu woy rek ñu ànd ñibbi gànjool ñoo bokk sunu maam bu nu woy rek ñu ànd dugg gaal dem ñibbi gànjool comme di ko li sunu waxee ànd nañ ànd bu rafet cinq ans ngay sénateur di sunu président yaay maan mi nekk fa man mi ma nefa no nu yo ak yow bu rafet li nak warna warna tay xel famille libérale bu ñu àndee ko serigne fallu Macky du fi xaar élection yal nu yàlla ma wax ni tout ce que femme veut je le veux ku teral jigen yalla teral la te and bala neex jigen ñi nekk ci ànd bala neex jigen ñi am cër jaarama président Abdoulaye Wade moom mi fi indi parité ba tax ñu nekk 68 femmes à l'Assemblée nationale président Madické Kenya, yow ñoo bokk ndey su ma la ko waxee wér nga maag yow ñoo bokk ndey wëlbatiku ngay sunu président groupe wëlbatiku bëgg Ablaye Wade wëlbatiku jàppale Ablaye Wade wëlbatiku nekk ci wetu Ablaye Wade kon dañ lay gërëm yow it di la sant Pape Diop seen toogaay bi rafet na loolu waaye yàlla bu ci cat dugg yàlla bu ci cat dugg yàlla miy jubale xol yi na yàlla jubale képp kuy famille libérale ba liñ bëgg ci réew mi jël ko président waxoon na ne nag PDS day au pouvoir pendant 50 ans ah Macky nak baaxul sax de ci euh, élève libéral la te bu fi jógee ki koy remplacer libéral rek lay doon kon 50 ans yi président waxoon dafay bëgg nur madame Loum la présidente départementale des femmes de Dakar m'a ngi lay au nom de la fédération nationale des femmes di la délégation Bima ma ñaari oto la ñu jël xaw jong sama rak indi oto ma indi sama oto te mënoon nañoo ëpp noonu ndax yaay man jaral nga ñu ko yaay man ku mën a joxe cër nga ah. man du ma kenn yàlla nuyu na la te gisuma ko barke Serigne Fallou Mbacke Ablaye Wade laa gëm mais bu ma compoon ma wadd waalo laa dëkk waalo laa dëkk li may àndeek nit ku ma yëg nit ku baax nga nit ku mën a joxe cër nga nit ku baax nga nit ku mën a joxe cër di ko jox sa yaay yaay rek nga may wooye te yaay cër la ku dem ba tuddee nit yaay am na foo ko teg président ma Madické jarabot jarabot nyang ñaar ñu tabe ngeen xamna leen bu ngeen andé ye fi neex ma leen nuyu aussi man di leen nuyu aussi ci turu Omar Sar. ndax mom moy sun secrétaire général national adjoint ki moy suñu président groupe di doomi Ablaye wad Omar Sar moy sun secrétaire général national adjoint PDS ngi ni demb ngi ni jërë ngeen jëf jigéen ni nanu and nak boole sunu bop